mu ñu sangoo ah ñun daal wax dëgg yàlla màggal gi ba première safar teroo ba léegi suñu robinet yi ci la tëj fi mu ne nii dañoo roota roota root ba bëgga a dee suñu gan ñi démb ba léegi amuñu lu ñu sangoo amuñu lu ñu jàppe te lii gëj na. ba Alaaji Baara nekkee xalifa bis booba la suñ robinet yu commencé di xelli ba suñ jonn yàlla tey tey jii nag màggal gii ñëw ba première safar ba suñ jonn yàlla tey suñ robinet yu ubbiwul ba bii oto ndox biñ gën trente mille lañ ko jëndee ñii ma bàyyi ma fen benn ndox amu fi ñoo ngi nii talu ñoo sangu suñu gan ñi sanguñ lu ndox muñ jàppe sax amuñu ko waaw ñun nag ay taalibe rek lañ dañuy ñaan rek ñi ngi ñaan daal ñi nga xam ne ñoo yor wàllum ndox mi ñu jéem a xool ndax ñun dañ fi doon tabax forage bu bees ñu defee ne forage si paree ndox mi day gën a yokk forage bi far ñëw mel ne daa yóbbu suñu ndox mi ñoo nga nii nu ndox amuñu ko oto yi bërki bi suñu góor ñi fa lañ fanaan ñu ne ñoom doxuñ leen ordre pour ñu ñëw fii fii nag ay oto daanu fi ñëw di fi gaare pour ñun ñii ku ci amul ndox ñu may nga ndox ren nag loolu dara dem nañ fii ci arrondissement bi suñu góor ngi dem nañ fi wante boobu ba léegi fuñ dem ñu ne leen ndox mi yabaluñ ñu foofu te ñu nag ci Touba lañ bokk. moom dafa bokk ci lépp lépp lépp mënoo lekk sans amoo ndox. Uh-huh. parce que ñoo ñoo ngi di jóge ba dakaar sangu sax pour ñu def ko problème la te li du dëgg yoon état bi ñu war a jàppale parce que seen màggal c'est l'indépendance du Sénégal dañ ko war a waajal bu yàgg avant état bi jàppale leen wutal leen ndox bu baax a baax a baax ndox waru fi mën a manqué am ay gan amuñu ndox loolu mënul rafetul daal. waaw ñun nag ci ndigal rek la ñuy wéy ñu doon ñaan ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ñu jéem a xool rek fii guddi ba xam ñu nu ñuy mën a def muy Touba Daaru Marnaan fii ci barabu sëñ Afiya bu sa fii ni jaay sëñ Fallou dëkk ñu nag ay taalibe rek ci ndigal rek la ñuy wéy